لرب كريم واسع juromi fan ci wéru koor di bis bu ñuy fàttaliku serigne Chouaïbou ibnu xaadimu rasul bis boobi mbooleem njabootuk serigne Chouaïbou Mbacke ak mbooleem taalibe yi di ko amal loolu tax sëtam bu baax bi di serigne Ahmadou Mbacke moom serigne Fallou Chouaïbou Mbacke di ko dundal ci gox bi di Touba Sam di ko fàttali mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi moor ci cee ànd ak mbooleem dëkkandoo yi dëkkee ci gox boobile ak itam mbooleem jàngkatu yi ak duruskat yi ak mbooleem ñiy waxtaanee dundu ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim mu war ci ànd ak mbooleem waa biir réew mi ak itam waa bitim réew loolu tax boobu la bis Serigne Ahmadou Mbacke moom Serigne Fallou bu Mbacke di ko yëgal mbooleem ñi mu bokkal ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim ak itam wóllëre yi ak xarit yeeg soppee yeeg am di jàmm yi bàyyiwul kenn ne boobile bis mi ngi ci woo daaira bi nekkee ci diwaan bu Dakar ak itam waa Thiès ak mbooleem yeneeni daaira yi nekkee ci yeneeni gox programme bi nii la fas yéene tëddee bu nu xëyee daañu amal jàngum alxuraan jàngum xasida salaatu ala nabi ci waxtu dog wi sëriñ bi dana amal ay bernde yu takku lool kuréelu is isbu tarxiya bu daaru xuddoos ci njiital sëriñ maxtaar jenn daañu fa jàng ak itam kuréelu tuut tànk yile bu ñu noppee yeneenu jàngkatu xasida yu takku lool bokk na ci sëriñ xaadim géey sëriñ naa mbàcc sëriñ ibrahima géey sëriñ abdulahat kundul waxtaankat ya bokk na ci sëriñ basiiru géey ak sëriñ mor surang ak yeneeni jàngkatu xasida yu takku lool mbokk yi kon fàttaliku jàmbaar ji Serigne Chouaïbou Mbacké ibnu Xaadim Rasul juróomi fan ci weeru koor la fa yéene am Serigne Ahmadou Mbacké moom Serigne Fallou bu di ko woote ci këram gi nekkee ci Touba Sam